amalee li nga xam ne mooy ab réunion d'urgence ak ñi nga xam ne ñoom lañ dénk wàllum wér yaram gi ci réew mi si lañ ko xamal ne ko jàngoroy coronavirus ni muy lawee ci réew mi ak askanu Sénégal bàyyeeku gi nga xam ne bàyyeeku nañ ko fu ko waaye natt passé na ko bay boo nga jël li nga xam ne mooy état d'urgence ak couvre-feu andi ko ci réew mi journal bi di réew mi quotidien nee na état d'urgence bee couvre-feu bi ginnaaw bi ñu ko décrété tey jii si àllarba ji vingt la ñëpp di tëri juróomi waxtu ci fajar ñëpp yeewuwaat maanaam vingt et une heures cinq heures du gi nee na nag Dakar kese la ak Thiès li ko waral bokk na ci woppi coronavirus bi ñu ko xaymaa ci Sénégal gi yëpp téeméer boo jëlee juróom-ñeent fukk yi woppi coronavirus ji ma ngi ci diggante Ndakaaru ak Thiès loolee moo tax Macky Sall jël dogal tëj Ndakaaru tëj Thiès yéenekaay gi nee na tey jii ci conseil des ministres bi dina am yeneen dogal yu yees yoo xam ne danañu ko jël njiitu réew mi di président Macky Sall dafa confiné Ndakaaru ak ñi nga xam ne ñooy waa Thiès yenn ci ay taskatu xabaar jàpp nañ sax ne Macky Sall dafa sanctionné Ndakaaru ak Thiès yéenekaay gi nee na Macky li mu xamle nee na l'heure est grave graaf ndax bàyyeeku gi nga xam ne askanu Sénégal bàyyeeku nañ ko ci mbas mi fu ko waaye natt daat nañu koy passé Macky Sall sax na mu ko tuddee relâchement général nee na lu jëm ci wàllum takku masque gi bëri na ñoo xam ne respecté wuñu ko li nga xam ne moom la waa kër docteur daal di santaane ñenn ci askanu Sénégal dañu ko football ca àll ba nee na moom Macky cas communautaire yi ma ngi jaba jonge ci réew mi saa sunu xëye muy gën di yokk ak li nga xam ne mooy cas grave yi ak ñi ci ñàkk seen bakkana yéen a kaay gi nee na moom Macky daat nay wax ne lu soxal wàllum contrôle gi ci frontières yi ci jaww ji ci jéeri ji ak ci biir ndox mi loole lépp Macky Sall nee na nañ si def ak taxaw seetlu boo xam ne bu mat sëkk lay doona yéen kaay gi di Vox Populi nee na njiitu réew mi di président Macky Sall démb bi mu génnee ci réunion d'urgence bi dafa wax ne nous sommes en guerre Macky nee na ci guerre la ñu nekk moo tax ay tenue combat la takk der yi di sol yéen kaay gi daan nay xëy wax ci vaccin bi ak li si njiitu réew mi di Macky Sall waxal yéen kaay gi de la Tribune Macky Sall nee na askanu Sénégal danañu ñàkkoo te nag ñi nga xam ne ñooy personnel bi ñi yëngatu ci wàllum wér yarama ñooñu la ñuy njëkk ñàkk Macky Sall sant na waa gouvernement ma ñu tegal ko ay pexe ay stratégie yoo xam ne dina mën a ñàkk askanu Sénégal gi yëpp ma ngi ci Sud Quotidien yéen a kaay gii de la témoin ñu fekk fa Abdoulaye Diouf Sarr mi ñu dénk wàllu wér gi yaram gi nee na jamono ji ak mbas mi ak ni mu mel ci Sénégal bu ñu ci jëlul ay matukaay caaf dina xëm làmbaay ñaaw ndax ñoo ngi jëm ci situation yoo xam ne am na fu mu yegg rek dootu ñu ko mën a maîtriser yéen a kaay gii di réew mi quotidien Sud Quotidien Vox Populi source à l'observateur ñu xëy fekk fa Abdoulaye Wade mi nga xam ne mooy yëgloo kaay gi nee na waa PDS ñoom bind nañu ministre de l'intérieur Félix Abdoulaye Antoine Diome ñu jox leen seenub cër ñoom waa PDS ci lu jëm ci audit fichier électoral bi ak réforme yi nga xam ne jëm na ci loi électorale bi waa PDS ñoom daal dañoo bëgg cër bu mag ñu jox leen ko ci lu jëm ci wàllum fichier électoral bi yéene kaay gii di las nee na njiitu réew mi di président Macky Sall ma ngi fëgg ab dënnam ne faagaagal na mbooleem ñi nga xam ne ñoo nekkoon ay opposant ci Sénégal ndax bëri na ay parti politique yoo xam ne Macky Sall tas na leen waaye nag bu jàpp ne génn na ci mball gi moom Macky ndax am na génération bu PDS boo xam ne jamono ji dañoo taxaw dëgër këcc ndax ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko su waxee ñëpp déglu ko ndax lu soxal wàllum xam-xamam jamono ji kenn duutu ko weranteeti Guy Marius Sagna mi nga xam ne mooy la de san sans voix taxawaaye ma ku ci mel ni Barthélémy Dias maire bu maire mu Sacré-Cœur ak nag courage bi nga xamante ne am na ko Thierno Bocoum taxaw ne ak Cheikh Tidiane Dièye ak docteur Babacar Diop ak waa Y'en a marre ñii ñëpp ñëw fas yéene ak Macky Sall Macky Sall bay boo mu leer ko ne am na combat fekk fa Abdoulaye Wilane bu nee na nag lu jëm ci wàllum financement parti politique yi ñi nga xam ne ñooy waa APR ak Macky Sall amuñu benn leçon de morale boo xam ne danañu ko si jox kenn ndax Macky Sall fii la taxaw déclaré ne jot na ay financement yoo xam ne bitim réew la jógee Assane Samb di ab taskatu xabaar ci réew mi quotidien xëy jël xalimam ne Félix Abdoulaye Antoine Diome dafa trompé wu ci communiqué bi nga xam ne génn na ko ngir tere waa Pastef ngir ñu dajale ay koppar ndax nag askanu Sénégal gi nga xam ne ñoo nekk ca bitim réew bi ñu leen joxee sañ maanaam ñu amal seeni activité politique boobee nag la ñu leen jox sañ-sañ ngir ñu mën a seeni parti politique ba tey ci biir journal bi moom journaliste bi nee na àq ak yelleefu bi nga xam ne moom la Sénégal yi nekk ci biir réew mi am moom la Sénégal yi nekk ci bitim réew am kon jamono ji moom jàpp na ne Ousmane Sonko moo nekk ci dëgg yéenekaay gii di Dakar Times nee na sax usman Sonko est-ce que jamono ji réellement maanaam soxla naa dajale ay koppara ndax Macky Sall ci boppam mooy directeuru campagne Ousmane Sonko moom Macky Sall ndax onze milliards yi nga xam ne jox nañ ko ko ay fonds politique ak presse Macky Sall bi maanaam média Macky Sall bi ñoo nar a jël Ousmane Sonko 2024 dugal ko ci palais bi ndax ñoo koy defal promotion ñooy yokk ab dayoom ñooy tax askanu Sénégal gën a bëgg Ousmane Sonko te nag Macky Sall ay njombeeki erreur rek la def ci Ousmane Sonko ci atum 2016 ba léegi nii Ousmane Sonko ginnaaw bi ñu ko falee atum 2017 mu nekk député élection présidentielle 2019 yi moo nekk troisième jamono ji moom Ousmane Sonko moo nekk opposant boo xam ne kenn mënu koo laam-laamee te bëri na ay ndaw ci réewum Sénégal ñoo xamante ni Ousmane Sonko la ñu bëgg maanaam ndaw ñi Ousmane Sonko la ñu bëgg Sonko moo ko aaki moom moo ko ngar daa joor jamono ji daal mën na ñoo wax ne Ousmane Sonko na toog maanaam bu tëddee na nelaw ba yandoor ndax nag Macky moo koy defal liggéey bi yëpp ak onze milliards am yi ak pressam bi ak personnel politique bi yéen a kaay gi xëy na ci Ligue des champions CAF FC bi nga xam ne def na exploit bu rëy niki démb ndax dafa gagné ñi nga xam ne ñooy waa Raja de Casablanca yéen a kaay gi di sunu làmb xëy na wax ci Tafa Gueye mi nga xam ne moo dajale waa écurie Fass ngir nag ñu xool écurie Fass ak écurie Ndakaaru nan la ñuy